الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا زوال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس يقول آمنا بالله الله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقارعون الله والذين آمنوا وما يقارعون إلا أنفسهم وما يشتهون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 آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمنت سبأ أرى إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ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 وهم ينفون لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السماء الصواعق عصر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم تك ورش اقالون يلا يلا ساملين كون نيو سونو كانغو نياريل موي سيرين صالح مو مي لا نيو مؤمن مكن القران تي مكن مو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يهل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وقولة ما حق برد في ذلك في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمحروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن تاكم بمحروف أو تسري بإحسان ولا يهل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تهتدوا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقوا فلا تهل له من بعد حتى تنكر زوجا غيره فإن طلقوا فلا جنى عليهما أن يتراجعا إن وهنا إن وهنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرهن بمعروف ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تحجلوهن أن ينكحن أزواجهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم ما شاء الله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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يهل لهن أن يقتلن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن, إن أرادوا إصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمحروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تحتروها ومن يتحدى حدود الله فأولئك أولئك الظالمون فإن طلقوا فلا أيل له من بعد حتى تنقي زوجا خيرا فإن طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن غنى أن يتراجعا حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فطلقن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرهن بمعروف ولا تمسكوهن درارا لتحتبوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم يأتكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأتر

naa sama mbokk nag mooy waa daara ji man nag sama cër mooy tuddee daara waaye bàyyi ji tout le temps at mu nekk daara ji ñooy xool ñoom ki gën a sonn ci daara ji ñu tuddee ñu bàyyele la ko Ibrahima Sène mi daara jee ko fay boor man nag maam. man nag masalan daara ji maa ko taxawal maa fiy jàngale masalan waaye dama am genn wàll ñoom ñu ma am genn wàll maa moom tur bi turu Daara Alimul Xabir ñu ngi tuddee bis bi seex Mouhamadou Gueye waa Daara Alimul Xabir muy dongay fay yeewoo nañ ne way jur yi nii faw ñu ndokkeel ko ci bis bi moom lañuy ñuy bàyyi la bis ba mu tudd Ibrahima Sène na xam ne ñaar ñii nii sëñ ma sëñ sëñ ma ko waxoon nee na ku nañu jàkk ñu ne la jàkk ku nañu jàkk ñu ne la jàkk waaye nag duñ gërëmut ku ñu defal duñ gërëmut ku ñu defal loolu moom na leer ci bopp yi ñépp ku bëgg ñu gërëm la dañ ñuy defal yi démb yi lu tax ñu leen di gërëm ñoo téye lislaam ba tey yaay yi ñu gërëm fii itam ñoo ñu dimbale ba tey kon képp koo xam ne yaa ngi sàpp suñu ngërmande danga koy bay de ndax boo bàyyi moom ñu amuñ droit sant la naa féq la te duñ ko dund kon Ibrahima Sène la nga rawee say maas ngeneen am nga luñ amut yaa ngi nañu jàkk ñu ne la jàkk moo tax daara ji faye la loola loolu it na leer ci ñëpp ñu xam ne gën ko waaye dafa am yoo xam ne da ko séq ak man te nag daara ji yëpp gis ko daaw ba ma fi waxee ne tuddee naa sama bopp ba pare daara ji dañ na ma kii lañ koy tuddee Grand As mi ma ne ko lu tax mën ne ma ku la xamut ci aadama xaw ngeen daje yow kese mu xabal la kër noppi ca abal la fa tool na la kaay bay pour loo xamee kër yow ñu ne ma ñun kii la ñuy bàyyi la suñu gis moom itam train seen lañ tànnati ah ku liggéeyati rek ku liggéeyati rek beneen yoon moom itam doo nga yox dof ñu gis ñu ngi gis seen bët yi ñu ngi ne jàkk di ko xool waaw man nga ñuy def lu ne la ñu sëgg waaye ne duñ demee bay joxe teraanga moom duñ la wéq de waaye duñ la joxin la loolu moom leer ci bopp ñëpp kon masalan ñu ngi jégalu ñëpp salaamaaleykum. baayam bi moo ñaan kàddu gi. man kaana sa hamdin mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñoo ngi santa ñu fi teew ñëpp muy góor muy jigéen waaye lu tax ma jël kàddu gi mooy dafa am soxna yu tedd yu baax wallahi ñoo xam ne kii seen njiit mooy tànnokoy kan wallahi raw ngeen wallahi tànnokoy yow ak ñi nga ànd raw ngeen raw ngeen ndax ñii dañoo ànd ak ñun jamono corona muy metti lool ñuy ñëw eer bii fekk na ñoom togg neen añu daara ji ba mu sotti heure bii fekk na soxna yi togg neen añu daara ji ba mu sotti te booba daara ji mu ngi métti woon lool kon mooy tànn koy kan yal na yàlla guddal seen fan bàjjanu daara ji mu ngi nii ku tedd kii waaye yemul si day jéem géej ak géej nu mu tumurankee mu dem jël ay jënam ak mbokkam ya nga xam ne ñoo bokk waañ wa ku nekk def sa la la ko war mu daldi di ko indi si daara ji kon jigéen googu noonu dañ ko war a feeñal tey jii dafa am xew moom ci boppam dafa am xew mbokkam mu ko jege lool mu ne ko daara ji du xewle man may dem xew kon kooku dañaa bëgg sëñ bi nga ñaanal leen yàlla nang leen ñaanal bu baax ndax soxna yooyu ñoom ñooy sin doole ñun ndax jamono bi metti boo génnee ñi jàpp la xale yi mënoo leen téye ci daara ji te doo leen jox ñi lekk ñu naan ñii dem di maajaali ndugg di ñëw di leen jox ñuy togg añ bi buñ ko toggee dañ ci añ xëdd ci bu xaree xëyee ndékk ci kon sëñ Babacar sant na leen waaye daare alimul xabiir sant na leen beneen bi mooy sëñ Babacar si bu ndaama sëñ bi nee na sant na la sant goo xam ne am na tàmbaliwaat amul fu mu yem bu ci topp mooy sëriñ mbay siise sëñ bi sant na ko santa gu am ibtidaaiya waaye am intihaaiya waaye ñun daara ji mbay moo ñu yoreel koor gi ba koor gi jeex moo ñu yoreel kafe te dañ ko doon jënd mbay dippi ñu xam mbay ba léegi amul koor goo xam ne moom da koo mujj def war wartif si moom kon mbokk yi fi ñëw ñëpp mbokki marché bi ñëw neen indi fi seen xewal ak seen i tiraanga sëñ bi sant na leen gis na leen ñi nga xam ne ñoo jóge am na sama mbokk yu jógee dakaar ak ñu jógee dakaar yëpp ñëw neen kon tamit sëñ bi sant na leen gis na leen képp ko xam ne tamit waa koñ bi sëñ bi sant na leen ndax ñoom tamit jàpp nañ ci bés bi ba am na ci ko xam ne wax nañu bu ngeen bëggee ma jox leen sama kër ngeen toggee waaw chauffeur bi nga xam ne tamit moo indi mbokk yi nga xam ne ñoo jógee ndaama yépp chauffeur boobu tamit sëñ bi nee na sant na ko gërëm na ko kii ñëw nii nag mooy sama waajur bu jigéen dafa ñëwoon fii yaram wi sutante waaye nee na bés bi manul fexe mu ñàkkaa ñëw teew ci bés bi kon ñu ngi ñaan sëñ bi nga ñaanal ma ko yàlla yàlla woyofal yaram wi kon daa mel ni loolu rek moo fi desoon ci kàddu ñi ah kanaa sëñ Modou sëñ Modou sëñ Modou mooy borom daara ji deru deru kanaa sama Ibou ibu Ibou ibu nag yow yaay borom ceri ji ceriji, ji du ma la ñaa yow moom dama lay bàyyi noonu xam naa ceri ji moom ah xanaa ñu jo Ibou rek mu mottali ñi ñi ah doy na waaw Ibou Sène nee na doy ah ñu jo ah sëñ Modou mu ñaan waaw mu ñaan joxal sëñ Modou mu ñaan ah Babou Jokko Modou Jokko ñëpp sëñ bi ne sant na leen sant na jàng kenn ku nekk Fatiha ayatul kursi waaw ñuy bokk kon jàng kenn ku nekk Fatiha ayatul kursi salaatul fatih ñaan borom bi képp ku fi teew yal yàlla faj aajoom ku fi teewee jàngoro yal yàlla saafara ko daara ji itam yal na yàlla dotti fi xéewal xale yàlla sàmm leen may leen alquran may leen xam-xam bu ànd ak leer bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu fekkee ko déwén yu bare bare bare bare bare bi jaahi rasulillah صلاة تفرج بها هموم المسلمين وكروبهم وغمومهم وتقضي بها حوائجهم دنيوية وأخروية حتى لا تبقى منهم حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وتفتح لنا بها أبواب الرضا والبركات والخيرات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والفقر والمضرة والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا